le le 4 avril 4 avril 1960 4 avril 2020 60 ans le Sénégal a fêté indépendance Le bi du centenaire Le 4 avril bu jot da nga daan majorité de danse Sénégal est content ngir indépendance coronavirus a ñu interdire pour rassemblement ba tax lol, bi lol, lool jooy fete, besukat gañ ko 4 avril am ba ren fetu 4 avril amul ci koñ bi ñu nek bërëb bi ñu nek wet ñu ku rek ni bu ñëk 4 avril bu jotaan askan wi dekké ci gox bi dañ daan róole ay yéré ngir wajjal bëss bi contane lol ngir li nga xamantene moy maaju takku der yi ren lol yëpp amul ñu laaj askan wi nan lañuy dundé wétaay bëss bi asalaamaaleykum. maaleykum salam. tur bi nakala la. Ibrahima Gueye la tudd. Ibrahima Gueye ñu fekk la fii si allée du centenaire tey le 4 avril bés bi lu mu lay fàttali. bés bi mu ngi mooy fàttaliku sunu soixantième indépendance bu Sénégal euh, muy 4 avril. mais nag vraiment année bi moom euh, déception lañ ci am sax mais mën nu ko tuddee déception mais li nga xam ni moom la yàlla def. ken mënu ci dara muy feebar bi nga xamni moy coronavirus bi motax li lii am. man papa Amadou Toumb laa tudd fii parce que man je suis né ici à la medina te amna 60 ans 60 ans ni ma ngi dund. dal mën na japp ni bëss tay bëss anniversaire la. wa sama anniversaire la quoi vraiment ni sante yalla bu baaxa baax di ñaan yalla aussi feebar bi fi duggu genn quoi parce que fi heure bi heure bi doon xumbu vraiment ambiance bi bari jaagati fi ñep contane kontaan kër yi xumb et tout quoi mais ren yooyu yëpp amul mais nak ñu ngi sante yalla quoi. bi ñu mayee wér ñu fekkee ko. wax dëgg neex yàlla ni ko ñëpp daan dundee rek fête indépendance moom dëkk bu nekk war na la nga koy célébrer saa su ne daan nañ ko célébrer ak ni ko ñëpp daan célébrer toog ci kër yi gis ni gaa ñi daan def fii mbooloo mi ñëw di ko fekkee waaw mu daan neex lool nag wax dëgg neex yàlla. feeti si mbégte ñëpp kontaan si njaboot gi yëpp àndandoo. sargal suñu soldats yi sargal njiitu réew mi sargal sargal soixantième anniversaire bi nga xam ni moo waroon am mais amul ah état de tristesse nag la ñu nekk parce que lii su doon suñu sago du demee nii mais nag li yàlla dogal si doomu aadama kenn mënu si dara. di santaat rek di xam ne bon xëy na c'est une euh, bonne idée bu ñu demee ba xalaat ne feebar am na muy mbas boo xamante ne mu ngi lëjal àdduna wit euh, kilifa yi xalaat ne lañ daan def ci 4 avril bi. xëy na mën na xaj ci li jàng fekk jàngoro ji loolu du ñu mën rek lu dul sant ci. bu yemoo dalal suñu xel lépp ñu wékk teg ko si yàlla quoi xam ne affaire bi dafa bettaate quoi mais ba tey ñu ngi sant yàlla daal yàlla na ko yàlla génnee si dëkk bi ak jàmm ak salaam ba ñu dellu suñu activité lépp dellu nekkaat yoon quoi. waaw boobu day damay waxaat rek ne ndegam bii dund nañ ko nii te yàqul dara ci mbir mi suñu ko mënee dundaatee noonu yàq gi daal. li ñuy def ci 4 avril boobu bëri na bëri waay goo xamante ne suñ koy mën a wàññi di ko def prise d'arme wala boog ni ko président bi wootee def ko palais bi lu ci yàq dara it la cay jëm ñu jël ko mu participer ci développement wu réew mi. fête en grande pompe waaw parce que tamit si lu ñu jógee dafa métti trop quoi vraiment heure bi daana fekk kër yi xumb mbedd yi xumb jaaykat yi di jaay bu baax yow sa bopp nga bég bégal sa famille bégal sa tout yàlla na yàlla 2021 ñu feete ko fête bu jaar yoon. waaw Sénégal am jàmm ak adduna bi yëpp nag nala la monde entier. fii daawoon na xumb daawoon na neex njaboot gépp ñëw seetaan vraiment ñu défilé ko si kaw jàmm ak salaam bu mu jeex ak jàmm ñëpp kontaan dem ñibbi seen kër. ñun ñi nga xam ne nag ñooy dëkk fii wala ñu fii liggéeye vraiment affaire yu manqué na leen su doon seen sago du demee nii mais nag lu yàlla dogal moom mooy kenn mun si dara. mu ngoog askanu Sénégal nii lañ féetee indépendance ren ñenn ñi jàpp ni nii moo gën. ngir gën a sakkanal koomu réew mi ñenn ñi jàpp ni wéet nañ lool ndax feet ba daan am amul ren xanaa rek ñu ñaan coronavirus gaaw fee jóge ba déwén incha allah ñu xool na lañ mën a feetee 4 avril bi ba mu tegu ci yoon xanaa rek ñu ñaan coronavirus jug fii ci nu mu gën a gaawee di souhaiter askanu Sénégal gépp bonne fête de l'indépendance